yàlla dogal mu féetee ak Daaru Xudoos féetee ak Serigne Mohamed Mbacke di Serigne Mbacke Soxna Lo Serigne Mbacke Soxna Lo Serigne Moustapha Mbacke jëwriñam taalibeem doomam jabal ci Cheikh Baara mi nga xam ne moo jiite mbooleem section yi nga xam ne ñoo bokk ci fédération Ahibahi baaxi Xadim di Nusrati Dinu Habib mu ànd itam mbooleem section yi ku fi kii ba mën a nekk bàyyi na ay yitteem ñëw ngir nit bi waaye ñëw ngir soxna Mame Moussa Mbacke mi nga xam ne si kenn la ci Serigne Moussa Mbacke Mohamed bàyyi léppam topp Serigne Moussa Mbacke Serigne Moussa Mbacke amul lenn lu mu ko mën a fayee lu dul mbooloo mi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Mohamed ngi yàlla ak jëmmi Serigne Kouwa mu boole ñëpp ak Serigne Mamadou Mbaara ñu teewal si ko ci bis kon ñu may lu tuuti kaddu yi ni nga demee kaddu. bismillahi rahmani rahim. mbokki jël mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ci turu soxna su tedd si toog di soxna sa Mbàkke di nuyu itam ci turu jëwriñu liggéey bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbàkke bala maa ñëw ci li ma soxna si wax loo dama yëkk a jot li kàddu yi mbootaay bii wala mbooloo mi tudde seen bopp ahbabun fi sillati rahim muy soppay soxna maam sa Mbàkke te yaakaar naa ko toog mbaa ku toog ci bâche bi ci la bokk soppee soxna maam bu sa Mbàkke mbooloo lañ ñoo xam ne sosu nañ bu yàgg ñii ay bokki boppam lañ ñii ay taalibeem lañ ñoom nag soxna si nee nañ mbooloo lañ moo xam ne dañoo boole seen bopp doon wenn say doon benn bloc laxa saa ko séenee ànd ak yow ànd ak yow ci zahir ànd ak yow ci baatin boo leen seen i xol boole seen i jëmm ba mu doon benn topp ci sa gannaaw boo teggee sa tànk ñu teg ko fa te duñu gëm duñu daay ànd na yow yow adduna ànd ak yow alaaxira du ñu la jaawalee kenn kenn ku ne ci ñoom bàyyi ko nga fa nga dëkk bàyyi say soxla ñëw ànd ak yow bis bii tax sëñ Tuubaa dafa wax ne balaa sëñ bi تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إذا المحب لمن يحب مطيع بغرفني دنما يملون نيت كو سابو يالا بلا كو نيت كو ديكو ماي نينا بغي نغا بغي يالا بلا دك تي moo tax nag ñoom bëgg giñ bëgg soxna si day dëgg moo tax lu soxna si bëgg dañ ko def sëñ tubaay wax na ci xasidaam bu ñu wax rayi la nee na zur man tuhib wa in shaqat bika daaru wa xaala min dunihi sahlun wa awaaru la yamnaannaka bu'dun min ziyaratihi illa al muhibba liman yahwaahu zawaaru sëñ tubaay dafa wax ne sop soppe sa digg ak lu sori sori sori bu ci ay xur a i tund doxoon sax war ngaa jéggi lépp fekk sa soppi ba fa meen wasul la waa euh, soppe sëñ soxna maam Moussa mii nga xam ne borom ci tubaab ñoom ay fans nee nañ soxna si bu nekkoon bopp bu wootee woon mali mali danañ ko danañ luye ay kaar fekk ko ndax cofeel gi ñu ëpp moom ñoo soxna si day dëkk ci ñoom boo tax takku nañ aussi ne ànd ak soxna si ba lu ci te luñ ci góobee rek gaaw soxna si jaral na leen lu ne ngi nee na sox nee na soxna loo bëgg rek wax ko loo wax danañ ko def ñu ñëw rek ci jàmm soxna si ci boppam nee na mi ngi sant waa Ahibbaul Khadim yëpp yëpp yëpp nee na mi ngi sant. section yi ñaar fukki section yi ak benn kenn ku ci nekk nee na lay sa taxawaay ci moom ci biir ci nee na seetaan nañ ko ci daal lu mu nekk ña nga ca moo mi ngi gërëm ñëpp waaye di jiital ci gërëm bi jëwruñu liggéey bi sëñ na mi ngi leen bu bees. topp ginnaaw suñu Moustapha mais loolu ñu ngeen ñu ngeen ko seetal beneen bees jaayante waat na ko topp ginnaaw suñu Moustapha nee na ngi ñaari tam suñu Moustapha ku bëgg a yegg rek suñu borom yegg la mu ci ci gàllankoor yëpp mu ci ci gàllankoor yëpp ba foofu bëgg a liggéey bi moo ko xam yàlla na waaye nag ñu ngi itam beneen sant rakkam ju baax ji di Cheikh Mamadou Lamine Ba mi nga xam ne moo jiite Ahibahil Khadim bu góor ñi moom itam nee na taxawaayam ci moom benn taxawaay ñu koy sant di leen ko seereel yéen booloo ne taxawaayu Sëñ Baara ci moom benn taxawaay lu mu ne Sëñ Baara nga tayam bi firnde la ci nee na ngi leen di seereel cant boo xam ne am na ko waa. mbootaay gii ma doon wax léegi muy soppee soxna Mame Bousso yi soxna si nee na yéen tam moom la ma dégg moom la moom doon wax léegi nee na moom maa ngi sant sama soppi yii nga xam ne ñoo topp ci man ngir ay bokk ñii di ay taalibe ndax waa ji baax bu ma sa jóg lu ma ma sa yëkkati ay soppee man ay soppee ma ko jàppale ba mu egg ko mu jëm moo tax kenn amul lu ëpp ab soppeem moo tax nee na yéen rek la nee na ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi seeral mbooloo mi tant xol bu ak xolam bu sedd ci seen taxawaay nee na si xolam sedd na guy ci taxawaay bi ngeen taxaw ci wetam nee na ñu ngi seeral mbooloo mi tam ak tànkam ci yéen waaye nee na ñu ngi sant it mbooloo mi ko jiital ci seen biir muy mbooloo mi ñu topp toppatoo ndaw yi muy tëddati ah waaw keneen bii loolu nee na mbooloo la boo xam ne dañoo dajaloo jiital ko nee na jiital nañ ko te fakkas ko ko. ànd na yow moom am nañ lu rafet a rafet bañ jugee ba tey mi na ñu ngi seedeel mbooloo lépp sant bu mu leen sant ñoom itam ak seen taxawaay bu rafet ci moom. Euh, ci gàttal soxna si nee na ñu ngi sant mi ngi sant itam turandoom yi soxna Maodo Seye ndax nee na ku ci mën a ñëw ñëw ba koo ne mu doon doxal sa tànk tànk sax sa yaay boot na la indi mi ngi ñaan ku ciy boot yàlla nga wàcce ku ci wàcce itam yàlla nga te mu ngi ñaar soppeem yooyu daal kenn ku ba tuddee ko suñu borom defal la ci lu koy suñu borom. si nee na mi ngi sant réseau bi bi nga xam ne sox euh, moom la ànd ak soxna Moussa Di Bakke muy ñoom taxawaay bu rafet ñoom it jiite soxna si ñoom itam ànd ak moom defe naa fekkee seen daje bi te mbaar ma da xam lan mooy réseau seen taxawaay ñoom itam ak seen i seen i objectif ak yéen ji ñu am ci dëkk bi soxna saa ngi ñaan suñu borom dimbale leen ñu warise bi ñoom itam ak liggéey bi ñu bëgg a liggéey seen Tuuba ak liggéey ba tax bi tax yow seen biir bëgg a liggéey li ñu joxee addiya yàlla leen seen Tuuba kon soxna daal ci gàttal nee na mi ngi sant mbooloo mépp ñi fi teew ñëpp ñëpp nga xam ne ak gënañ si yitte ñëw fi ngir yàlla way jor mu baaxul si sëriñ Abdou Aziz yàlla yàlla ko sàmborom yàlla jëlaat nangu tànk yi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 سيدنا ومولانا محمد حبيب الله الامين المجيد وعلى اله واصحابه وخير خديمه اجمعين يا ربنا بعبدك القديم وصحبه ونهجه القويم هب لمحمد الذي في ضائبه مراده يا دافع المخاوف أكرمه في طائفه والأهل ومن نحى إليه يا صلى الفضل asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa soxna maam Bousso bokki jullit yi fi teew yëpp bokki taalu bi yëpp noo ngi jotali kàddu yi jóge ci ku tedd gi di Cheikh Mouhamadul Moustapha nga xam ne moo fi yebal jëmm jii ko wotti di Cheikh Mouhamadou Lamine mii yaakaar naa bala ma dugg ci waxtaan wi dafay wax na xel yëpp dal na njort yëpp rafet te yaakaar naa Cheikh Moustapha bu yónnee sëñ Baara loolu dal na xel te loolee mooy lii ba léegi rek loola mooy ba léegi rek lenn moo tax sëriñ bi. bëggoon a ñëwal boppam waaye suñu borom dogal ay kilifa yu fay war ak léegi nii la daal di woo sëriñ bii fi sunu wax ko li mu koy wax daal di demal ànd ak maamoom ñeen teewi ca soxna maam bu sa wax na la muy wax lépp lu ci manqué ci nun la waaye sëriñ boobu lépp mat maa ngi seeral ne ci suba bi ma ba ma àggee jox ko li mu jëkk wax jaarale ci soxna maam bu ma ne ko waaw day bàq waaw man nu may def loolu jàng bi lay wax ci tey ko def jamono xam ne jàng na ci suñu ko waaw jàng naa kon loolu am bari bari bari bari muy lu muy feeñal sëriñ bi rek nee na soxna si bu ngeen bu baax di la jottali di ko seegal mbooloo mi mépp ay cantam ak i ngërëmam amul lu gën cant ak ngërëm radiyallahu anhum wa radu anhum suñu borom weesuwul jaamam yaay yi bu leen ma sante ma dolli leen waaye nag bu ngeen àggee ci bu ngeen jaaree ci wàllu baax ci dëkk bi ñuy wax ngërëm foo moom li ñuy wax aw aw saan muy def dese la ngërëmante lay doon radiyallahu anhum wa radu anhum ngërëm su ko weesu waaye Cheikh Moustapha nee na na la waaye gërëm na te loolu ñun ñëpp seere lañ man de fekk naa ba tey ay jotaay yi ñuy wax ba tudd soxna ma Busa suñu Cheikh Moustapha ni ab murit Cheikh nee na moom soxna si ab murit te tudd ab murit ak doon ab murit yaa ngi gërëm tudd ab murit yomb na mooy boo ne jox naa waaye doon dañ daa Cheikh Moussa Niana soxna si lii lii suñu borom defal da koo liggéey jënul rek fekk ko fi déedéet yëmul rek ci cër bi am sëñ Tuubaa ne déedéet yëmul rek ci fi ko yàlla bool ci waskan déedéet def ni fa saayu liggéey sëriñ Mouhamed Mbacke ba suñu borom jox lañ koy jox sëriñ bi nag nee na loolee la xam moo tax mu fas fu mu fekkoon ne sëriñ Mouhamed def ci moom bu doon bu fekkoon ne luñ mën a lim la fas yi dana ko yokk ba kenn duñ ko mën a lim foofu la am la soxna si ne ñëpp seere ne Cheikh Moussa nee na soxna si lu mu nekk mën ci biir moo gën a ci biir lu mu nekk rek sëriñ bi wóor na koy génne ne ceeb ñi fi nekk ñëpp waaye wóor na koy ne li fi def lépp moom lañ koy defal yett yooyu mu ma ko nañ barab bi baraba ma ñooñam ñi ñooñama liñ fi def moom lañ koy defal kon nee na mi ngi leen di sant cant boo xam ne amul yamukaay ci taxaw gi ngeen taxaw ñëw si ba jàppale ko ci bis bi ak yi ci jiitu sëriñ bi xam ne loola moo loola moom ngeen ko defal te gis na ko te jàpp na ko téye na ko bu yëgul rek wax na ma baat bi kii ma ne boo xam ne maa ngi toog mu dugal ko sama bii fekk am nit ku ñëw am lu mu di sànni wax wax ba yeggal ci murid yi rek ak seen baax seen càkkutéef ak seen kër ba mu demee mu ne Moustapha ma ne ko mu ne bu ma gisee sax kuy kuy taxaw naan damay ñaanu naan wala dama bëgg naan damay koo jaaral ma ne jàll mu ci nekk rek ñëpp ngay wax dara. gisee kuy ñëw di taalal di jaw di naan nangam ak nangam loolu da koy jaax ne nee na boo nekk ci ndigal bi jërëjëf daal ah, loolu jërëjëf bu wax la jërëjëf daal kon li am solo mooy nekk rek ci yi courant bi ak poto lamp yi nu wër yëpp ba ba nga génn Touba yi ci bëri fa yëngu daal dinaa ne fenn rek la ñuy laal yëpp tàkk na taal nag comme toog ak lam def ba fay toog daal moom xam na poos na ko taxaw rek ba mu tuxaale mu nii la mu war a nekk loolu mooy ñun ñii na nekk ci li mu sëriñ bi digal te bàyyi te bàyyi te bàyyi ko boppam rek moom bu suñu yoon nekk ci moom bu suñu nekk ci moom li suñu yoon war a nekk mooy li mu bëgg te damay tolloo xam ne loolu man dem naa ci yaqin man moo di képp koo xam ne fexe nga ba Cheikh Moussa Mouhamed nangul la na la ne tey ëllëg. la sëñ Mouhamed Mbacke waxoon def lay fàtt sëñ Mouhamed daa mosam ni ko siyaare bis ku seen soxla wax wax ba yeggale mu wax ñaari bàcc gàtt daan ne leen jërë ngeen jëf na ngeen gën a góorgóorlu te nekk ci ndigal te nekk ci ndigal yi ngeen di sant te xam ne yéen ñii ma yàlla booleel ngeen wax ju baax yéen ñii ma yàlla booleel jël naa ci addunaay bu demee ëllëg ku ci bëgg gis ku ci bëgg gis ku ci bëgg gis keneen ku ci ko bokkul ci yéen xanaa mu kiosu waaye seen kanam moom bu ngeen ko gis kenn mbàkk moo ko nee na gis nañ ñun foo mu mën a doon suñu mbàkk moo ne ñun ñu ànd ak moom boo ko bëgg gis da ngay geesu waaye suñu kanam moom bu ngeen ko gis kenn Cheikh Moussa nag foofee loolee lu ko raw moo nekk ci moom mu ngi jàpp lu raw loola la woon démb tey la fuuf tamit ko raw kon nag alhamdulilah rabbil alamin ñu ne yàlla koo xam ne fi muy doon nangul la bay bu gudd dégg na la loolu doon na am solo nag ak loo mën kër kër ak loo mën def fii nag ba mu nangul la rek ba mu nangul yow mii moom yëpp la rek ba mu nangul rek jeex na li tax mu nangul nag mooy nga ne ci lim diggee lim diggee nag fii ne te moom la fi ci kàddu gi mooy yëg yi biiru sataane di ahibaaru xadim li nusrati diinil xadim képp koo xam ne yaa ngi ci liggéey bi ci moom li te wér bay woon sa jàmm mooy léppam léppam ngi ba tax na kon nag li ngeen ci lépp xam na kenn ku ne loo ci yëngu ak foo mën a xam na lépp kon nag ñu ngi sant ñëpp di di te dugg ci section yëpp ci barab yëpp kenn ku ne teew di jëm Cheikh Moussa waaye teew itam di jëm soxna bu fa mii ngir jàppale ko ak jàpp ko ak na gërëm ñëpp te di leen xamal daal nan fedde wax ak saa yu baax ndax bantoo daal gis naa ne daf koy faral di bantoo lu bëri fekk yow ak saa yi mooy saa boo xëyee nga fàtte li nga defoon démb fas yéenee tàmbaliwaat tey ndax moom kat foofu la ne moom Cheikh Moussa foofu la ne foofu la ne bis bu nu mu gën a doon Mourid Sadiq Mourid Sadiq yëpp leen tegoon ci balance teg Cheikh Moussa ci benn Mourid moo gën a Mourid ñëpp moo ko tëral ñëpp sëñ Tuubaa rek ku ñu ràññee